والقلم وما يسطرون sëñ Jili Ñang la ñu jox mu lim lenn ci délégation yi fi teew buñ ca noppee jox kàddu ki nga xamante ne nii mooy wax ci turu suñu invité d'honneur di soxna Adja Binta Thiaw mhm. waaye lu jiitu loolu Oustaz Alioune Sall dafa bokk ci ñu war a jël kàddu mhm. mu mel ne ngàntul war génn da koo dab moo tax kilifa gi sàkku ñu jox ko kàddu waaw mu joxe participation ci liggéey bi ñu yeewi ko incha allah waaw oustaz Alioune Sall moom itam di gan goo xam ne chaque année day ànd ak ñun liggéey bi oustaz ñu ngi lay dalal di wax bisimilah bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na nu yàlla may dund gu barkeel yàlla nañ fekki déwén te weesu ko noo ngi jéglu ndax yu mel nii léeg-léeg bu la fekkee am programme boo joxe woon buñ la soññee soññate la te mënoo yolleeku dangay toog rek di di xaar ñu ngi jégglu mbooleem koo xam ni ki yaa ngi ci jataay bi nag ci ci loolu bu may waxit mën naa am ma wax ci benn groupe bu tudd Sud Communication ndax seen diggante ak sëriñ bu may jeexal suma waxtaani fajar bi ngeen di dégg ma naan ak nañ fa war te yëkkate jataay bi ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax a yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fànjale xibaar tubaab ak ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S fajar gu jot lu laay wax daan la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar sama kàddu nag man saa bu ñëwee dama koy baamtu am na ñu wax ci mbind mi ñuy boole boole nañ ñuy discours ñuy taalif taalif nañ man nag lef mi may jëm mooy en tant que ku nekk ci wàllu communication nun ñi ci salle bi yépp dana war léegi suñu jógee fii ku soxlaati ab weer dem C3S ku soxla aluminium dem C3S ku soxla taabal dem C3S ku soxla vis dem C3S ku soxla lu ñuy def ci néeg kër yi dem C3S ku soxla euh, lu ñuy tëj ci buntu kër yi dem C3S ku soxla fenêtre dem C3S ndax koo xamul ni nga koy def ni mu la defa tax te fii nu Serigne Seck féete nan ko féete fii bàyyi fàllu bu njëkk ku amoon ay donga da nga leen di jàngal ñu xëyal la tool am de da leen di jàngal ñu xëyal la tool ñun de xëyal leen tool suñu sëriñ ba tàyyi loolu moo xewoon comme sëriñ Seck xëyal nañu nag ci yeesalal ñu mbind bi nan ko xëyal ci jëndal ko bagaasam yi sa bagage yi daal noo ngi ñaan suñu borom yàlla boo mu lambati waaye nag nun ñu nag noo koy def rek bis na ko tey man de bu soobee suñu borom lu may jënd ci loolu tàmbaleel jaay karo dégg nga boole ko ci li ngay jaay ah nun la di man kaan laay kaan laawloo bu dul bu dul bu dul alxuraan di di wax ju siiw ci dëkk bi man daal sama kàddu toujours su ma ko jëlee su guddee loolu laa bëgg a wax su kàddu yi gàttee loolu laa bëgg a wax bu soobee suñu borom daal duuti fi jaaytu lu lamb yaag sa xarit bii sant ja tey jaay meew yeeg soo yeeg yooyu yéen ñaar daal daal ji kont nañ leen te maam Sëriñ Tuubaa nag nee na ku gàmm ba déwéntu yokku dañ lay wax gàmmuwoo ma foofu mbàkke parce que kuy liggéey ci wax ku ne ko waxal day wax rek am waaye may ma rek ñaari baat ma nuyu Adja Binté mii ngeen ko invité d'honneur ndax man sama doom ju jigéen moom mais moo ko jàngal alxuraan yar ko dama ko koy jox nag koñ ba moo fa dàqoon a fecc waaye bi mu ko bàyyee koñ ba moo fa gën a tëlee fecc Adja yal naa la yàlla fay moo tax man tam lii Serigne Seck def keroog may teg sama xeer bu njëkk ko ca daara ja moom mee laa woo ko kaay teg ko ndax daara ji am barke ku fi ñëw yaru ndax moom da ngay toog moom rek yaru yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf jërëjëf oustaz Alioune sàll jërëjëf ah bon comme gannaaw dañuy tàccu tàccuwaat leen bu baax baax a baax a baax a baax bu baax dama damaa yaakaaroon ne kenn ñi mewut a tàccu waaye kon booba léegi génn ngi tàccu eh, ñu ñu jaajëfal oustaz baax sëñ Mbàkke waaw moom nag sëñ Mbàkke day day moom day ndax moom kàddu yi mu yëkkati jàpp naa ne ñi fi teew ñëpp la ko yëkkatil dafa wax lu dafa am solo xam nga ñi nga xam ñooy sponsorisé alxuraan ñu mat a ñaanal lañ mm-hmm. ndax wajal bi jaayil muntaqa hayaati riayat alqurani sil ayat mm-hmm. alxuraan dañ ko war a sponsorisé mu yaatu ci domaine yëpp ñoo ñi si fees ñëpp am na si ñoo ñu ngi liggéey liggéey boo xam kenn gisu leen waaye nañ xam ne moom borom bi tabaaraka taala ku yëkkati al sa jëf ngeen alxuraanu karim ah, mi ngi lay gis anta bi ni'mati rabbika bi majnun